ñu war na am syndicat. Mhm. fii ñi forul am syndicat yi ak gendarmes yi. Mhm. képp ku ci des ngay liggéey kat war nga am syndicat soo bëggul syndicat. Mhm. n'est-ce pas loolu mooy yow bëggoo sa indépendance. d'accord parce que syndicat moo la mun a tax lépp loo am rek. n'est-ce doon loo xam ne da nga ko yelloo da ko xeex ñu jox la ko. ne ko rek loo xam ne tey la koy saraxe wala boog euh, voilà nga obligé neexoo ak pouvoir exécutif pour ñu jox la ko. donc réforme yëpp dañ ko war a def pour mun a teg. Euh, teg évidemment euh, dëkk bi ci yoon. Mhm. parce que ñu deful réforme yi. même su dee Ousmane Sonko ci boppam moo toogoon. Mhm. dina utiliser système bi. mais ci loolu <laughs> dégg nañ. candidat yi yenn candidat yi di wax qu'il nous faut peut-être un président par transition. bu ñëw toog def ay réformes pour après organiser euh, yeneen. élection non non pense que. ci durée benn mandat. Mhm. mun nañu def toutes les réformes réformes yoo xam ne yëpp en six mun nañu leen def. on a une assemblée nationale boo xam ne mu ngi en place ah, dina fi nekkaat au moins pour trois ans kon en cinq ans ci ci ci trois ans ou quatre ans yi nga xam ne moom moo des war nañu mën a def balaa as législature bi di jeex war nañu mën a def tous ces tout ces toutes ces toutes ces réformes là soxla ñu def fi ay transition oui euh, parce que ça on di dëkk nii euh, ci ay élection je pense que c'est pas normal mm-hmm. je pense que loolu mu ngi koy wax euh, parce que simplement Eh, dafa xalaat ni Sonko dañ ko war a. Eh, eh, dañ ko war a maanaam dañ ko war a wax ma réhabilité maanaam toor yi ko def dañ ko war a réparer. <laughs> je pense que côté boobu lay xalaatee. dañu war a def transition boo xam ne. Mhm. ñu mun ko andiwaat ci jeu électoral bi mhm. Sénégal yi dem élection. Mhm. ñu fal ki ñu bëgg parce que fu mu nekk ni ay sélection la. waaw Macky Sall ku mu bëggul nga bokk doo bokk. oui mais loolu je pense que ça dépend des Sénégalais sa <laughs> euh, dépend des Sénégalais parce que vie moom dëkk bi moom ñi xam nañ nu muy demee. waaw euh, suñu voté ba pare. Mhm. Euh, bureau yi tëj représentant parti yëpp dañuy nekk ci biir salle bi ñu wàññi bulletin yi ku nekk li nga am ñu affiché ko. Mhm. yàlla dafa def yéen presse bi ngeen nekk fi tamit. di ñu wax n'est-ce pas en temps réel. Mhm. les résultats des bureaux de vote. kon je pense que. euh, ça dépend des Sénégalais. Mais il faut surtout que les partis politiques aussi am la carte électorale. Mm -hmm. Et aussi surtout que ñu mun a nekk présent dans tous les bureaux de vote. Voilà. Parce que bureau de vote boo xam ne nekku leen fa li fa xew mais. mënoo ko xam mënoo ko xam. Mhm. donc dañu war a organiser wu. Mhm. nekk présent dans tous les bureaux de vote. voilà même su dee mënuñu nekk président de tous les bureaux de vote ñu fexe ba ñu boole seen doole. Mhm. mu am benn représentant opposition boo xam ne dina toog ci bureau de vote bi mu nekkal fa ñëpp waaw loolu c'est un minimum bi nga war nañu ko def ñun citoyen li ñu am citoyen en tant que citoyen suñu rôle mooy dem voter léegi ni ñuy sécuriser vote bi loolu rôle c'est le rôle des partis politiques d'accord euh, parce que le régime en place moom mhm. il fera tout pour que son candidat puisse passer donc ñoom ñoo war a fexe ba jëlee matuwaay pour que ñu nekk ci bureau de vote yi mhm. n'est-ce nekk fa di défendre seeni pour que résultat bi nga xam ne bureau de vote par bureau de vote li ngeen moom moo ci génne. moo doon loo xam ne dafa méngoo ak li citoyen exprimé. su mhm. ne citoyen yi nag majoritaire bi ñu ne Amadou Ba ñu bëgg. ñu ñu fal ko mu nekk président. ñu ngi ko mu euh, liggéey. boo ñu doon defal tey une petite comparaison. Mhm. en chiffres euh, ci wàllum droit de l'homme Sénégal ci période Abdoulaye Wade ak euh, Macky Sall actuellement. Euh, lan nga ñuy wax. oui mais damay wax rek <laughs> mais c'est très simple soxaloon dafay comparaison da ngay yi rek. Mm. soo waree classement Reporters sans frontières Sénégal fan la nekk tey ci classement bi. on a beaucoup reculé. mais au fond. Mm-hmm. du classement. Mm-hmm. soo jëlee Freedom House. tey tey tey seen classement fan la nekk. Mm-hmm. Sénégal nekkatul benn démocratie bu sûre. dafa nekk un démocratie boo xam ne nekkatul euh, c'est une démocratie en danger. classement Freedom House. soo jëlee classement Civicus yàggul fan la def Sénégal. pratiquement un état autoritaire. n'est-ce pas. Euh, Abdou Abdoulaye bi mu demee ñaata prisonnier ñaata opposant la ba yoon fii ci biir prison yi. Mhm. mais kenn. kenn. kenn ko kenn Abdoulaye bi mu Abdoulaye bi mu bi bi bi mu bi mu bi mu toog peut-être le cas Barthélemy Diaz mais boobu xam nañu nu mu demee. Euh, Abdoulaye bi mu demee à part le cas de Barth. nga xam ne c'est un cas lié à meurtre. dañ ko tuumaloon ni dafa rëy njëg njëg Diouf mhm. mais amul kenn ko xam ne bay na ko ci biir kaso bi mhm. eh? Abdoulaye xëy na toppoon na Idrissa Seck mhm. waaye bàyyi na yoon mu def liggéeyam dafa bàyyi yoon mu def liggéeyam bi ko yoon setalee mais daf ko bàyyi mu dem këram mais Macky Sall xamul loolu loolu su dee su dee af dafa appliqué woon kon biirum Sonko du passé cabinet Omar Maham Diallo du ko du ko passé na ma docteur ñëw na seet si ma ñaari yoon te li mu wax dafa leer ne bi ma demee di seeti ndaw si fu mu nekk. waa mhm. gynéco waaw mhm. ni ma ko fa fekkee musuma gis jigéen bu ñu siif mu ne ma nekk naa pendant presque vingt ans mhm. képp ku ñu siif di gis ne Grand Yoff xaar yàlla ba parcelle ci man lañ ko daan andi yenn saa yi dañu lay andi deux jours après mais ni ma gisee ndaw si. niiru la koo xam ne dañ koy siif. ci wàllum traumatisme bi la siif. mën na absolument ma ànd ko xool ko. Mhm. gisuma dara maa ngi dégg waaw euh, agence judiciaire de l'état dinaan waaw. ah dañuy euh, fekk ay ay dañuy fekk ci ci ci ci ci lu mu wax ci cour la CEDEAO dañuy fekk ay taches de sperme et cetera et cetera mhm. Mhm. mais loolu waxu neen la docteur Gaye nee na dama fekk ay sécrétion vaginale waxul dafa fekk ay sperme Donc, ils sont même capables de, de, de, de, de transformer les faits. Mhm. en passant, agent judiciaire de l'État, beaucoup nag gens koo xam ne war D'accord. xoolaat je n'ai pas compris son rôle dans, dans warul nekk di fi défendre un régime de for a défendre état. d'accord affaire Sonko ak Adji Sarr yoonu état nekku ci da ñoom ne affaire privée la. Mhm. ñun affaire privée la. Mhm. ñu jël ko di def ko une affaire d' di dépenser ay millions des centaines de millions de contribuables sénégalais pour mm-hmm. fay ay avocats uniquement pour ñu empêcher un candidat n'est-ce pas pour mu nekk pour mu nekk pour mu mun a présenter wu. c'est pas son rôle. Mm-hmm. Hmm? fan la intérêt wu état nekk en danger foofu. Mm-hmm. ci affaire Sonko ak Mame Mbaye Niang diggante Sonko ak Mame Mbaye Niang. lan mooy lan moo fan lan mooy intérêt wu état ci cas boobu. diggante Sonko ak Adji Sarr mooy intérêt état ci cas boobu. même suñu bayoon Sonko tey est-ce que mun na wëlbati ku topp état. donc eh? ça prouve. donc ñu doon wax rek. son rôle son rôle de l'agent judiciaire de l'État dañ ko war a seetaat. d'accord su ma gisee muy xataraay damay naan lii moo war le comportement de l'agent judiciaire de l'État pendant ces deux affaires là. Mhm. dafa war a tax bi ñu xoolaat le rôle de l'agent judiciaire de l'État. ñu mhm. préciser ko. oui fépp am ne état amu ci intérêt. fépp foo xam ne askan wi am ci intérêt war fa taxaw di défendre. Mhm. surtout di défendre dossier boo xam ne c'est des dossiers politiques. Mhm. dafa am lu jotewul dara ak ak ak ak intérêt état état Sénégal ak askanu Sénégal. Mhm. alors euh, euh, aujourd'hui mënuñu wax ci régime Macky Sall te tudduñu li ñuy woowee détenu politique parce que nag dafa bëri lu toll ci mille et quelques jamono ci ñu ngi ci kaso bi de mars deux mille vingt et un à ñu bëri ñu nga xamante ne jamono ji ñu ngi ci kasu bi dañ leen jàpp ñu tuddee leen des détenus politiques amoon nag benn enquête bu nga xamante ni annoncé woon nañ ko euh, au delà des détenus politiques am ñu nga xamante ni aussi ci manifestation yi ñàkkoon nañ ci seen bakkan am benn enquête bu ñu annoncé woon mais depuis lors mu mel ni yëf yi dafa tagga tembe loolu est-ce que du gën a nasaxal li nga xamante ni moo ci euh, euh, démocratie Sénégal ni ñu koy gisee au Sénégal mais aussi à l'international moom dafa gëm ni mënul régner sans la violence policière sans la violence de la gendarmerie musu ko gëm. moo tax bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo fexe ba l'enquête bi ñu waroon def. ci mhm. fukk doomu Sénégal ak benn ñi ñàkkoon seen bakkan ci. Euh, manifestation préélectorale bu 2011 2012. Mhm. dafa fexe ba loolu yëpp mu annulé ko. à part kaw dem si yàlla du Diop. Mhm. ñi nga xam ne baayam xeexkat la n'est-ce ñoom ci seen bopp a am problème conscience. Mhm. parce que ñoom la doon xeexal à part boobu amul benn kaa bu xam mooy amoon na amoon na amoon na am def nañu l'enquête ba mu egg ci àtte. Mhm. amul mooy cas ñaar ñu reyoon Matam cas xale ñu reyoon Kaolack ak Dakar ak Dakar dafa fexe ba. mu annulé yëpp. Mhm. annulé yëpp. woo mbokk yi ne leen cinq millions baa ngi nii ku bugg jël ku buggul jël ku buggul sa affaire la am na ñuy jël. kon moom teel nañu woon am na xam ne bañ nañu. teel nañu woon boppam parce que buggul buggul ñu sanctionné benn yoon policier wala gendarme parce que pour su leen sanctionné rek n'est-ce pas su leen digalee pour que ñu dal ci kaw askan wi duñ ko def. Mhm, mhm, donc il a toujours régné comme ça. impunité totale soo xoolee ñeneen mër nga ne amoon na fii à part kaw Basirou Faye mhm. amul benn atte te Basirou Faye étudiants yi ñoo mobilisé woon mhm. étudiants yi dañu mobilisé moo tax finalement y justice mhm. man mi jéem nañ ma xooxatal ci affaire Basirou di eh, damay convoqué par par voie de par voie de média pour ma dem témoigner oui n'est-ce pas donc Macky il a instauré un système d'impunité maanaam fexe ba takk der yi ak gendarme yi. Mhm. ak seen chef yi xam ne. Mhm. Macky na leen protéger. d'accord waaw ñaata bu def rek dina leen protéger. Mhm. ma leen di wax nag képp ku def ñaawteef. tant que protection état tant que yaa nga pro tant que protection état. n'est-ce pas téye waaye bés boo ko amatul. keroog la xam sa ñaawteef. mais l'après Macky. xoolal Yaya Jammeh tey. l'après Macky est tey xalaat. am na ñoo xam ne 94 lañu lay reyoon 94. Mhm. dem nañu sulli seen bàmmeel. Mhm. yóbbu yax yi ci expert pour mu xool ko pour ñaan anam lañ lay reyoon. Mhm. tey kenn ci policier wu Yaya Jammeh yi ñu ngi koy condamné Allemagne prison à vie. ministre de l'intérieur bu Allemagne bu Yaya Jammeh tey ñu ngi koy atte en Suisse. kon nañu xam ne ñaawteef lépp loo xam ne mun na jël bakkanu doomu adama soo ko naree def na ko def ci anam yoo xam ne yow mi sa bakkan dafa nekk en danger. Mhm. wala sa bakkanu euh, euh, beneen collègue dafa nekk en danger. Mhm. légitime défense. mun nga ko def comme boo xam ne drapeau la yëkkati. voilà di koy xool ñëpp di koy xool. Mhm. ñu dóor ko bal mu daanu. alkaati bi ñëw ba tiim ko. xool ko dem ba dugg otom dem. mais léegi alkaati boobu mu ngi ci système bi. ça on peut pas parler de légitime défense mu ngi ci système bi. waaw ah. ah Bignona soo waxee xale yi ñu rey Bignona. Mhm. ay 11 ans ay 12 ans. Mhm. yooyu mun nañu sànni xeer. Mhm. mun nañu sànni dama ne. xale bu am 11 ans 12 ans maanaam ñu nekk sixième. ak cinquième kooku mun na jël benn xeer benn bloc de pierre sànni ko 10 mètres ba mu daal alkaati wala gendarme. mais c'est pas possible. manifestement dafa am li ñuy wax ci tubaab. un usage disproportionné un usage illégal de la force ci événement mille 2021 ci événement juin 2023 ak lépp li xew ci diggante bi mhm. y a eu un usage disproportionné de la force un usage illégal de la force mhm. te ñi ko def yépp dañu war a xam ne bees dina ñëw mhm. commission d'enquête bi nga xam ne moom la ñu annoncé te créé wuñu ko commission boobu dinañ ko créé te bees suñ ko créé Macky Sall dootu fi fekkee nekkatu fi. Mhm. les langues vont se délier. oui képp koo xam ne li nga xam di ko wax. Mhm. képp ko xam li sa morom def n'est-ce pas te nga rawal ko wax di ko wax. oui kon nañuy def très attention. Mhm. très très attention. mais avant moo dem sax. parce que métier alkaati yi. yoon moo ko organisé. métier gendarme yoon moo ko métier yoon moo ko organisé. yoon boobu ko toppee il est extrêmement difficile pour que nga rëy nit. ci mhm. maintien de l'ordre. parce que dañuy wax la.